murit bi ngalla xeerew lul maa ngi lay waxati ku tax nga yéemaat sëriñ Tuuba ak ñoñam ñaati mbokk yi di loo ñu seetaan ñu ngi leen nuyu baax baax kenn ku ne toon sant di leen siyaare di sant yàlla baax a baax wax julli ci sa sa salaam gën ngaa màgg gën ngaa sell fii nekk ci kër sëñ Cheikh Sëñ Ndiaye xéewal jàkkaarloog doom ju tëdd siñ Cheikh Ndiaye xéewal nga ñaan saa moom yàggal ko te wéral ko ñu ànd ak sëñ Mucaa Mbeng ak sëñ Mouhou Ndiaye Sène fekk fi sëñ Abdou Ndiaye ñu indi liggéey bi nga xam si nii dañ ko doon liggéey ngir première journal bu Serigne Cheikh Ndiaye xewal bi nga xam si nii fédération Serigne Cheikh Ndiaye xewal section Touba moo ko doon saytu ba war koo joxe tey nag ñu ànd si Ndiaye bi nga xam si nii moom moo doon def journal bi ñu daal ko xam journal bi ci yenn buntu la wax ngir Serigne Cheikh si la xam ne dundam mënees koo tënk ci ab téere sax xaju si waxuma la journal waaye ñu ko ci tuuti rek waaye ñu bëgg xam buntu yi journal bi wax ñu. man koo sëñ bi daal seen xaaj ma ko doon def. rahmatullah mbokk yi jullit mbokk taalibe yi ñoo ngi leen nu nuyu di tàmbalee ci nuyoo bi sëriñ Cheikh Irada eh, mii nu toog ci wetam di sunu sëriñ waaye yàlla dogalee muy sunu xarit te xam na ko jëfe ko ñaan sunu borom gën ko yàggal lool ci jataay bi mu toogee waaye nuyoo boobu ñu. teg ci loxoom ngir mu jàll ak ñim wala njabootu sëñ Darou gépp te sëñ eh, Abdoul Khadir nekk ci bopp ba sëñ Pape noonu nga ko waxee eh, lii nga xam ne ab journal la tudde ko xadaayqul fadaili te ni ko wax de kër sëñ Cheikh si la Ndiaye xéwal radiallahu anhu saytu ko yàlla baaxee nu nun ngeen santoon nu wàllu liggéey bi wàllu mbind mi waaye itam bañ ko bindee ba noppi itam doyloo gu ngeen nu doyloo bàyyee nu lépp ngir nu yóbbu ko ci infirmerie ba la ci am lépp ci ab defar ba mu mel nii tey ngeen bàyyee na ko ngir doyloo gu ngeen nu doyloo loolu nañ ciy sant yàlla bu baax di ci sant ndax ñu tugg yàlla ku koy lëggéeyal ku nekk kuñ kuñ na kaay lëggéeyal ko yow yaa war a sante ko noonu lañ sant bu baax di ci gërëm te xam ne loolu moom suñ tawfeex la suñ borom defal na ko noonu ñu sant bu baax a baax Euh, bu ko defee kon ni nga ko waxee jëmmi journal bi nii la toll nii la mel toll ci euh, fukki xët ak ñaar muy fukki paas ak ñaar yoo xam ne tënk nañ ci ab tënk tënk nañ ci lenn ci dunduk Serigne Cheikh Sëriñ Ndiaye xéewal mi fi jaaroon radiyallahu taala anhu muy ay bunt bunt bu njëkk ba wax ci ak gane jamonoom ñaareelu bunt bi wax yéen ci wàllu aw askanam ndax nit boo koy taarixal faw nga askan yi mu bokk suñu si niñ ko xamee bokk ci askanu njare ak cilla leeral nañ ci ni mu demee ci euh, sëñ Daaru Xasan noon ba ba ca maam Demba waaye leeral itam diggante askanu cilla wi nga xam ne ci la bokk jot way juróomu jigéen beneen bi la ci dolli ko mooy am njàngam mi jàng fi mu jàngee alxuraan ak fi mu jàngee xam-xam ba ja jógee nag sóobu nag ci wàllu liggéeyal yàlla ni mu nekk ci daara Cheikh Moustapha loolu di ab bunt boo xam ne wax nañ ci diggante ma Cheikh Moustapha ak jëf yi mu ci daal def fas yéene yi mu ci àndaloon waaye itam ba Cheikh Moustapha ci itam digganteem ak sëñ Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma mi mu jaayanteeloon ba ca 1978 ci xeeti liggéeyam doon ànd ak moom ci liggéey Daaru Salaam dara ma yàgg xeeti liggéey ya ko jiitu woon yëpp ba ni nga xam ne noonu la sëñ Cheikh Mbacke wàcc ci liggéey 78 mu ànd Lo ci liggéey yi nga xam ne yu ci bari ci ndaw ñi léegi yu ci bari fekke nañ ko ak moom jamonante ko ak moom buñ ci tuddee mbayum taayif dana doy buñ ci tuddee jumaay taayif liggéey jumaay taayif dana doy bu ñu tëggee doy waaye itam xel kom ji nga xam ne daanaka ci la gën a ràññ koo mën nañoo xam ne ci la jeexal liggéeyam loolu it ci diggante suñu bàkki soxna lo loolu itam ñu leeral ca doxin yam ca daan dox ak yam ca daan soññee ak fas-fas yeeg fas yi ñu àndandoo ak njaboru suñ doo xam gépp bu loolu wéyee itam ñu leeral diggante bi nga xamee ne wóotu na magam ju baax ci sëñ Mbàkke Xawa ci cent 1998 doo tooga jataayub sëñ Darou Xasan waaye toogaale jataayub sëñ Bay Fallou muy at moomu ba ni mu wàcc ab liggéey ci eh, atum 2014 eh, loolu diggante boobu leeral lañ ko fi ak yi ci xaw yëpp ci xeet liggéey waaye itam ñu leeral fi mu wàcc ab liggéey ak dat baag yi ci aju yëpp loolu daal mooy diggan ak nag tomb bi nga xam ne moo ci mujj muy diggante ma jamaatu Ahibahil Sallallaahu alayhi wa sallam mi deeru sëñ nga xam ne Euh, tey njabootu suñ Daaru Xasan bu ñu takkatoo nii tey nekk genn buum na ko seen maam bëggee woon loola sëñ Cheikh Sall da ca liggéey liggéey bu am solo ci jaare ko nag ci ci daayira sëñ Daaru Xasan bi nga xam ne magam ji baax sëñ Mbàkke Xawa ci kanamam la sosoo woon mu nekk fi am at rek daanaka wala at ak lu topp dara bàyyee ko liggéey bi moom mu àggale ko foo xam ne nii wax dëgg yàlla jéggi na dayo ndax wax nañ ci ni mu fexe ba tënk njabar sëñ Daaru Asan ci genn buum te mooy sant ñi yore liggéeyu daayira bi fu taalibe sëñ Daaru Asan nekk ci biir réew mi rek bitim réew ñu fexee jokkoo ak ñoom ñee ñañ mën a dem ñu dem ba ca ñoom maa ngi fàttaliku am na tournée boo xam ne man ci laa bokkoon dem nañ ci dëkk boo xam ne nii kenn ku ko yaakaar sëñ Daaru Asan képp moo fa nekk waaye sëñ bi na wax ne na ngeen fa dem ba àgg fa ngir mu bokk ci liggéey ba waaw sax suñu borom baaxee na defal na tawfeex ba joxoon fa saafara soo xam ne nee na sëñ bay faloo moo ko joxoon loola tawféex la waaye loolu la muy wan rek mooy bëgg gu sëñ Cheikh Fassila bëggoon nos gum nos njabar sëñ Darou Assane ba tënk leen loolo doyul mu mbooleem màggal yi amoon ci biir kër sëñ Darou Assane gi mu dajale leen yëpp ci deux mille euh, euh, deux mille trois mu doon genn mag mu dajale leen ci da ci kër sëñ ci màggalu sëñ Daaru Sam gi loolu liggéey la ak taxawaay boo xam ne nii yoon yëpp ñu ngi koy roy di ko wax di ko di ko mébét te di ko bëgg loola suñ safas suñu borom baax mu def ko loola wax nañ ko ci biir journal bi kon daal suñ baab ci tënk bu gàtt rek loolu mooy journal bi képp koo xam ne dem ko ci biir journal bi da ci fekk loolu ñu wax ci gën gën a yaatu waaye itam nag bu ñu waxee dundu sëñ safas ñu tënk ko ci fukki paas ak ñaar loola day wane ne ab joxañ la ab junj la boo xam ne nii ay bunt la yuñ ubbi ku bëgg a gëstu man jaay gëstu waaye defe naa yéen ji am ak miwér mi ngeen am mooy dundu sëñ Cheikh Faty Sylla bin def ko ab téere boo xam ne nii marjan lay doon boo xam ne nii ba addunay tukki ku fi jaarate rek man koo jël muy sow yoon wax ne la nga bëgg ci sa borom lépp da nga ko am loolu jàpp naa ne mooy mooy seen bëgg-bëgg te yàlla suñu borom jàpp ba ne amee ko ko fay njort loolu daal mooy mooy tënk bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu xamal leen ni nag sabab bi tax ñu def ko mooy ndaw ñi nga xam si ni ñoo toll ci yoru liggéey bi te jimeen yi ñuy gën a jamono mënaguñu lu bari booba Sëriñ Seex Sylla mënaguñu agsi ci moom te booy waxtaan ndaw ñi Sëriñ Seex Sylla ñu itteewoo ko lool te xëy na temps bi duñ ko may moo war ñu indi leen luñ teg seen loxo rek ngir mën a xam seen jàmbaar jooju kon sonal bi dëgg-dëgg ndaw ñi moo moo ñu ci gën a poussé ngir ñu defaral leen ko ngir ñoom ñi bëgg te sopp Sëriñ Seex Sylla ndax Sëriñ si la kat li Sëriñ Saliou am ci yoonu murit ndaw ñi tase ndaw ñi jamonoon ak ñoom ndaw ñu bari xam ci yoon mu jamono ñu tolloo suñ sa suñ xam loolu suñ saf la am ci yoon Daaru Njaay man nga ndaw ñu ne ci daayira Daaru Njaay yëpp fu ñu mën ëpp suñ saf si la lañ xam ci moom lañ xam ne daayira ci moom lañ yëngoo kon loolu moo tax ñoom it fuñ jaar jëm leen jëloon jukkal moo tax ñu defal leen lii kon ñuy sant baax si Mour Ndiassane wax yàlla dañ ñaan saa borom bàyyi la sa xam-xam ak sa wér sa kattan seen Mour Thiam Mbengue it ñu ko sant baax rek léegi ñoo ko ànd lépp lu mu ci man mu ngi ci doon def ba mu egsi fii mu egsi tey kon ñu ñaan saa borom fekkaloon ak jàmm salaam kon daal Sonatel baa ngi noonu képp ko soxla woo bu soo yàlla dañ fexe ba feeg màggal gi ko bëgg boo ñëwee da nga ci mën a am ci njëgu ndaxte liggéey nañ ko ba indi ko te loolu dong moo tax a jóg ngir baaxee ko nit ñi boo demee ba sa nga nekk Ndakaar wala nekk Mbuur wala fenn teel bi kër gi soo bëggee xool fàttali ko suñu saf si la boo gisee am loo mën a fa ëttalikoo loolu rek moo tax ñu wut ko waaye du sax am commencement lenn waaye dañ koy wut rek ngir loolu kon ñuy sant baax tey nag nu am mbégte di ko won suñ kilifa gii sëñ Cheikh Bara Ndiaye xéwal jébal ko ko mu rafetlu ko lool kon sëñ bi nga ñaanal nu ci saa borom yàggal nu fi ni bàyyi na wax suñu xel ak suñu xam-xam ak suñu ba nu gën mën a nàmm gën a jublu ci sëñ bi euh, xuus ci ay mbiram ba liñ bëgg koo defal mën koo def lépp te naan yow yàlla mën ngeen def kon sëñ bi ngal xew lul maa ngi lay waxati. ku tax nga yéemaat sëriñ tuuba ñoñam ñaati murit bi ngal la xerewlul maa ngi lay waxati ku tax nga yéemaat sëriñ tuubaak ñoñam ñaati